àggale ko ci napp bépp taalibe boo xam ne bii mi ngi askanu ci pay bi rawatina yi nga xam ni taalibe yi ñu ngi fi daje bàyyi ko ci barab yi fasantikoo buñ demee danañ ko jot li ñi nga xam ne jotuñoo teew mooy làmmiñu pay bi ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jaalan allahu fi musibatina wa abdalana xayran minha bésab tey bi bés bu métti la bu diis la ci ñun waaye danañ ko muñ ndax ku ñàkk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñàkk cheikh tiyaani ñàkk mahamad ajabdoulaye ñàkk baye ñàkk seydi ali cissé di ko muñ tey ndax sunna la toppante la rek cant ak ngërmande yoo xam ne dañ koy jëmee ci alfayda alfayda dëgg-dëgg karaamaay bay moo ci feeñ nag alfayda wax dëgg yàlla rajo yu bëree ngi fi waaye ñëpp yéen la ñu déglu képp koo xam ne kii yaa ngi déglu alfayda doo ci jëlee lu may gën a yokk ak mbëggeel ci bay ñu ngi rafetlu seen taxawaay bu baax seen liggéey seen yitte wax dëgg yàlla te neenalu leen ñi ci des itam képp koo xam ne kii xewle na rek di ngeen dem fekk ko jël xew ma jottali ko loolu itam mooy li dëppoo ak li nga xam ne moom la borom rajo bi di ñu leen di sant bu baax ñu leen di gërëm ñu ngi fetlu seen taxawaay di ñaan yàlla gën leen a dimbale incha allah dana mujj nag télévision boo xam ne bi ni ñu koy déggee noonu lañ ko gisee loolu moom soretul sax incha allah ñu ngi sant ñu ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di am naqar lool ci li nga xam ne moom la yàlla teg suñu kaw ci dundu àddina bi jëm ci dundu bële yàlla fekk ci kanamam dund bu gën bi nekkoon fii yàlla dëkkaaleeg baayam dëkkaaleeg Cheikh Tidiane ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Alfayda àgg na fu nekk ci àddina du caagee nag fii ci Medina wala Kaolack wala Sénégal waaye fépp foo xam ne fii taalibe bàyyi nga fa Alfayda rek moom la déglu ndax moo leen di jokkale ak pay bi di sant directeur bi ci xalaat bu rafet bi nga xam ne moom moo ko xalaatoon mu doon xalaat boo xam ne ñëpp a ngi koy rafetlu ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla fas nañ yéen incha allah dimbalanteeg moom ci mbir mi mel ni ko bëggee jàngeen euh, jëfati ngeen ñuy toppandi ci juróom ñeen fukk yu tombal euh, benn euh, kaddu gi di àddoo fii ci Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci ay gox yu wute te fasantikoo mbokk yi dal leen ak jàmm ci tu xabaar yi ci kalamay ko ci yàttal bu ngeen taxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li ci gën a fës nag bokk na ci Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass nag daañu ko jébbal boromam alxamis gannaaw takkusaan bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi porte parole ba di Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Seydi Alioune Cissé lu ni mel daañu ko yàttal ci biir xibaar yi. Sénégal Mauritanie jàpp Nigéria ñëpp ko jooy moom Papa Cheikh ne jëmi mbaax ja dem na ku daan dimbali jaamab yàlla yi waa l'hôpital régional bu Kaolack ne ñoom kay xam nañ ca dara ndax nag loxo mësu faa jóg walew nañu seen ne déedéet Papa Cheikh kay ñun ñoo ko ñàkk ñun la demal dañ ci dikk ci biir euh, xibaar yi xalif bu bi xam nañu ko Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh euh, Ibrahima Niass lay wuyoo euh, di ku ñu miin nag ci jotaayu xam-xam yi borom tafsirul Quran bi ci Medina na nataalam dañu ca ànd ak Cheikh Tidiane Tidiane Diagne bu li lépp yéen mbokk yi dañ ca toftal yeneen xabaar ñaareelu xabaar yi xabaar yi bitim réew lay doon xabaar yi tàggat yaram ak li yéen i yi xëy tey jile Serigne Moussa Kane ci wàllum xarale gi Frim Pàcc ji bu ne esquissé lay doon. Le journal moo nekk ci waxukaay gi asalaamaaleykum mbokk yi dal leen nag jàmm kaddu gi di àddoo fi ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé bi la jotaayub xabaar nag tey jii daanaka benn ko ponk la lépp rek ma nga aju ci ki nga xamante ne nag moo di xalif bi fi jógee ko Cheikh Ahmed Tidiane Al Khalifa dem na naam waaye demul ci liggéeyam bu rafet ba mu liggéeyal baayam ba toppooni tamit nag magam ñu baax ña lu ni mel di kaddu yi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Seydi Alioune Cissé may sant taxawaayu nguur gi laata muy defal jullit ñi ay kàddoom Cheikh Ababacar Dieng moo ko tàttaan. yàlla moo moom lim dese lim fi ba moo moom it lim jël te lu nekk am na dogal dayo boo xam ne nii fa la jëm ba si dee du ba si dund ba si dund du ba si dee waaye am na ñoo xam ne seen dundu sant yàlla la seen dee tim sant yàlla te al xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass kenn la ci ñooñu génn àddina ci dimanche ba si dimanche tim la gane woon àddina di doom ci Cheikh Ibrahim doom joo xam ne it doom yi la doomi rooxo la tim naka ay magam bàyyi yar ko yaral ko boppam méngoo ab yaram sàmm ko ba mu mel ni mu bëgg ndax moo ko wax yoon wi nga xam ne mu ngi ànd ak bàyyi moo ko magam xalifa alxaaji ahmadu ci aj bàyyi ngi wax ne sama yoon wi ahmadu ak ahmadu ñu ngi ci fi tariqi ahmadun wa ahmadun najlaaye temma fihima ma aqsud te wax na lu mel noonu ci seen mag alxaaji abdoulaye ci feneen ci rexla ba nga xam ne wax na ne jikkoy mag ñi la amee kon ñooñu nga xam ne bàyyi ba mu yaree sett si njëkk si nga xam ne ñooy taalibi yi nga xam ne ba ñuy ñëw dara xatalu ko lim amee kenn jëlagu ko mooy muqaddamam yu mag yi ba mu leen tuddee ci rexle ba dafa tuddaat doomam yi alxaaji abdullahi ak alxaaji ahmadu ak cheikh tidiane ne leen bihim fal taqtadu na ngeen roy ci mag ñi nga xam ne maa leen yar bañ mel nii kon gannaaw bu mu leen juree daf leen a jaarale ci yooni taalibe mën nañ nekk exemple ci doom ju bugg a baax ju nekk kii nag nga xam ne tey moo dem muy cheikh ahmadu tidiane mu nekk koo xam ne ku ràññeeku la nekk ku lewet nekk ku am yërmande nekk am kersa te loolu yëpp di jikko yi jullit nekk ten koo xam ne na nekk ku mën a muñ nekk ku xajoo ak ñëpp bëgg njaboot gi yëpp te buñ ko waxee dafay làmboo jullit ñi ñëpp kon kooku moo dem tey waaye mel na ni demut ndax madrasa bi mu génnee madrasa bi mu ngi fi jàngale yi nga xam ne moo ko yaroon jàngale yooyu mu ngi fi gërëm ba tey eh, taxawaay gouvernement Sénégal ndax bañ de ne sëriñ bi mu nga ca Dakar rek ñëpp ñu ngi góorgóorlu ci loolu bi muy doctim ministre de moom mooma njëkk oo ministre de la santé ooma président tegu ci loolu yëpp di ñu ngi ànd ak ñun ñu ngi gërëm jëflante boobu ñu ngi gërëm euh, jëflante boobee dañuy des ak moom ba tey nag rob beek kañ lañu ko jàpp ak it ni ma leen ko junjee woon euh, Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Seydi Alioune Cissé àdduna ci euh, lu ko jiitu yi tamit nag mu ñaanal Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ma xamee ne njëkk nag ku baayam waajaloon la mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng ñi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla dimbale ko ci en bi nga xam ne moom it préparé nañ ko xamoon na ne lii waxtu nekk la bàyyi waxoon magam alaaji abdullahi daf koy jàngloo muy jàng ci ndànk mu ne ko alaaji waxal ci kaw ndax ca tirbin ba lañ jëm maanaam bés dana ñëw yaay toog ci tirbin ba di gàmm yaay toog di wax loolu dars la bu jëm ci ñoom ñëpp te ñoom mokkal nañ ko yal na yàlla dimbale ñun ñëpp ba nga xam ne dañ mën a taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxaw pour dimbale pour liggéeyal xadarti cheikh ibrahim ba tey ci ndigali cheikh maahi ñu ngi fàttali ne dëj bi ñu waxoon ne àllarba la yóbbu nañ ko alxames ci gannaaw tàkkusaan ngir yenn yi nga xam ne nii moo waral loolu war a dugg ci ci jàmm gan ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm jàmm ji ñu fekkee ñu bàyyee ñu ko te duñ yóbbaale ci ñun lu may jàmm ak teraanga li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa diggee ci lii yàlla may ko kenn ku nekk ci ñun ajana allahu fi musibatina wa abdalna xayran mimma faqadna ñi ngi gërëm ba tey taxawaay gouvernement Sénégal te la bàyyi waxoon man lu baax du ma ko fayee fàtte loolu mooy xadaraam bitim yal na yàlla boole dimbale yal na yàlla xiir ci lim bëgg ak ci lim gërëm jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yaay Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu barakati mawlana sahibul faydati mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Seydi Alioune Cissé tiis boobee li muy métti métti tamit nag rek daañu ko muñ ndax nag li fi jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee fi mawlana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass du fi bàyyi kenn te it nag yàlla kenn du xëccoog moom lu ni mel di kàddu yemu bégalee taalibe yi moom Cheikh Baye bu Papa Cheikh ànd ak di wax Papa Cheikh dimension bi mu amoon ñu teewlu ko ci micro Cheikh Assane gis ne Cheikh Ahmed Tidiane génn àddina daw de baay bi ko doomi bàyyi ku doomi aadama la la tare ñëpp la uuf li bëggal boppam moom la bëggal yooyu moom moo nekkoon bras droit Baye ci Nigéria ci àdduna bi fépp ak yooyu léegi moom na ko def na ni mu bëgg yàlla kenn du xëccoo moom ñu neñ koy jaale di ko jaale sañ Sénégal yëpp di ko jaale àdduna bi yëpp parce que moom Nigéria Côte d'Ivoire àdduna bi yëpp fépp fi ne moo doon ambassade Baye ci Nigéria ba Ségou ba Burkina fépp fi war na fi leen bëggal boppam moom la bëggal ñëpp maanaam jullit la daal ñàkk nañ ko yàlla kenn du xëccoo moom li mu def rek daal ne inna lillahi dellu yàlla sant yàlla ñu ngi koy jaale bépp jullit moom ñëpp la woon rakkam yi magam yi bu yàggul rek la magam génn àddina muy Fatima Zahra mu jooy ko tey muy dem kon yal na yàlla xeet ci lim bëgg ak lim gërëm xam ne àddina judd rek da nga dee ñu ngi gërëm sëriñ Sénégal yëpp Nigéria ak Mali ak àddina bi yëpp fu mën di nekk waay mën di nekk ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaale yéen ñi tax taxawaay rafet na ñu ngi leen di jaale di leen gërëm di leen sant gannaaw loolu dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dañuy des ak Cheikh Baye nag ba tey ndax itamit nag jaare na ci rek daal di jaale njiitu réew mi andi ay seede boole koog di sant yàlla ci tiis wi ak li muy métti métti di nangu dogalop borom bi Cheikh Baye bu papa Cheikh ba tey ak Cheikh Assane Cissé. sant sant yàlla di gërëm ndogalam mm, ci lu ci bon wa alhamdulilah ala kulli xaal ñun daal lañ am ci di eh, Mali Burkina foofu yëpp def na dem ba eh, Nigéria jàmm daan am moom mooy ki daan yëngut moo nekkoon ba àddina bàyyi am ko xidma sori tey nag mi ngi noonu di fekk ba nit ki ne mi ngi nekk ak ki mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax la mu ne al mar'u ma'a man ahabba yàlla ne wala yumassannakum min al-khawfi wa al-ju'i wa naqsin min al-amwali wa bashiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alhamdulillahi rabbil alamin yàlla ko mu ni am technique yi ne mu ni mi ngi nekk ki mu bëgg bëggut lu may bàyyam Cheikh Tidiane sunna ak bépp jullit fu ñu mën a nekk taxawaayam mu leen dimbale jaamu yàlla uuf ñëpp ñu ko loolu daal lañ amee ci ni sant ci ndogalam ne dinañ gërëm tàggee jaalee bi ak seen ñëpp fi ñu leen di Cheikh Baye dañuy des foofee nag ca kër Papa Cheikh euh, ba tey euh, donte ne nag tiis bi sax métti na bette na waaye teewul nag njabootam ga dëkku nañu ko ci dal ba tax na yi tamit ñu mën a yëkkati ay kàddu rek ay kaddu yu seede euh, boole koog di koy ñaanal moom Papa Cheikh kaddu yi njabootam gu jigéen gaak Cheikh Assane Cissé. Cheikh Amarem Papa Cheikh mënuma wax ci moom macha allah. ay sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah. lan moo la gën a ci xalifa Cheikh Amadou macha allah bëri na trop am kersa bëri yërmande ci jaamu yàlla yi loolu toujours daf may marqué ci moom tuuteel kenn ku nekk rek daf lay jox sa wàccuwaay macha allah. dañu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun musibu ñàkk. ñàkk nañ nit ku baax ñàkk nañ doom baay ju jàmbaar doomi baay boo xam ne ni ku amoon kersa ku fonkoon doomu aadama ku joxoon ñépp cër ku amoon teraanga ci nit ñi ku jàmbaar lépp lu ko war def na ko ba muy xale dañuy nettali ne képp ku mësaana fontoo baay ka muy politique lu mës a xew dooleem du ko fekkee ca gannaaw baay tamit taxawaayam ci Nigéria ci liggéeyal baay ci fu nekk rek bi mu nekkee xalifa lépp lu mu war a taxawee rek ci lu rafet rek taxawee na ko jëmbal na ko boole ko loo lépp loo xam ne kenn mënu koo wax rek chantier yi liggéeyal baayam taxawalaat ansaaru diin lu nekk def na ko ci lu baax yal na ko yàlla may wax rek la mu waxoon ci li sëñ maamul gaañoon ne yàlla def ne boo waxee inna lillahi dina la jàngal sa damm-damm waaye damm-damm bi kenn mënu koo jàng waaye ñu ngi ñaan yàlla mu mu delloo ñu Cheikh Tidiane te yàlla des des ci pey bi métti trop te bette na trop trop waaye ñu ngi koy yàlla ndax euh, doomi bàyyi la xalifa bàyyi la liggéeyal na bàyyi am na ngërmaaneem ci dundam gannaawam it taxawaayam rafet na jàmbaar la ñu koy ñaanal yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla kaddu yooyu nag di kaddu njabootam gu euh, jigéen ga euh, papa Cheikh moomee nag doyoon na rek ñu ne nag amoon na ngërmaane bàyyam ba waaye teewul nag da koo liggéeyal ginnaawam ci lu ñëpp gis teg ci bët ànd ak ni tamit nag jikkoom yu kawe yaak mbaaxam ga foo ko nag rek weesu na ko loolee nag di kaddu ya rote ci Baye gën koo xam ci Baye aussi may sant rek ci feeñuwaay bi jamono ji ay kàddoom Cheikh Ababacar Dieng moo ko tàttaan ñu ngi sant yàlla bu baax bam ñu mayee lu baax lii nga xam ne dund nañoo ak moom juróom-ñett fukk ak juróom-ñett loo xam ne dund nañ ko ci moom dund koo xam ne lépp ci mbaax ak jaamu yàlla loolu dañ koy sante yàlla tey su ko jëlee dañuy delluwaat lu mu nekk nekk naqar ci ñun dañuy wax alhamdulilah ndax bànneex lay doon ci ñun ndax lu tax muy nekk bànneex ci aadama mu wax ko lu ñaaw nga tooñ ko nga ñàkk koo tooñ nit koo xam ni borom yërmande la nit koo xam ni taxawu na tey àddina laa wax waaye du mën a méri na ci social ci ndimbal ci lépp te kër gum dem nga ne foofu la bokk laata muy nekk xalifa fekk na alaaka boobu mu am ko waaye alhamdulilahi rabbil alamin ki nga xam ni baay moo ko gërëmal boppam muy waajuram ki nga xam ni mal na baayam kon nu ma ko waxee ñun nag suñu baay moo dem du ma ne sama mag moo dem waaye sama baay foofu lañ féetewoo maa ngi mujj gisanteeg moom ci jouru julli gi yegg si fa onze fekk fa Faatumatu fekk fa doomam bu jigéen mu tuddoo Cheikha Mariam mu yëkkati res bi jox ma ma lekk ma yëkkati sama àddiyee jox ko na ko ñaanal ma yàlla kon alhamdulilahi rabbil alamin laay wax ci moom Cheikh Ahmed Tijani al Khalifa muy Cheikh Ibrahima Niass tey suñ toogoon di ko seedeel fii la ñuy toog ba suba du jeex ci ab mbaax nit koo xam ne la li tool bi baayam bàyyi kenn mënu cee taxaw weerante ci liggéeyu tool fekk na ko waaye lim ci liggéey wax dëgg yàlla dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax ci toolam bii jublu woon na ci jumaa ji nga xam ne baayam amut lu dut jumaa ji ak alquran ji nga xam ne mooy karaamaam ñaar yooyu lañ mën a ooteel Cheikh Ibrahim ndax gëmutoon lu dul lislam rek ak sharia am niñ koy doxalee loolu la Cheikh Ibrahim Niass xamoon bokkoon na ci projet am pour mu yaatal jumaa ji mu ngi ci woon ànd ceeg porte parole am suñu sëriñ Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Alioune Cissé nga gis ni tamit ci loolu nga xam ne tey xam-xam moom la bàyyi wax te xam-xam googu tey kër gi mu ko doon defar te moo jëloon engagement bi pour defar ko te loolu jogu ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. mu nekkoon ay kàddu yu Baye Mbaye euh, MC euh, Papa Cheikh comme nañu ko daan woowee waaye tamit nag tur wa di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass Al Khalifa euh, moo nekkoon nag loxol ndeyjooru baayam ba ba ba mu noppee njàngam nag ba tey ji rek noppaluwul benn yoon dañu tii tamit nag di xidmaal Maulana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima magam yu baax ya ah, bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi Cheikh Sidi Habib bu Papa Dame seq na waxtaan bu yaatu ak Cheikh Tidiane Diagne bisub sant yàlla la ndax yàlla mooy joxoon papa cheikh jox ñu ko mu jaaree ko ci cheikh ibrahim ak maam mariama ñang ju ci ñaari jàmbaar yooyu ñu yar ko ci yar bu teey yar bu bëri lislaam yóbbu ko mu jàng alquran ba mu mën a alquran keroog ba mu jógee ci alquran am ji ba léegi ci kanam baayam rek la ne nekk loxo baayam jàppale baayam ci zahir jàppale baayam ci baatin ba am ngër maanel baayam fu ne baayam ebal na ko ba ndax óolu ko fu ne teewal na fa baayam cheikh amad daa moo daa wax ne fu tànkam bi àgg rek tànk baay bi àgg na lislaam ku sonn ci faydu bi ku sonn ci njaboot bi ku sonn ci àddina bi ku sonn ci mbindeef yëpp mbaax daal mi ngi am ci Pape Cheikh mbaax baax jëmmi mbaax laa wax ci ñi xam mbaax mi ngi am ci Pape nit la koo xam ne amul kum jariñu ci dëkk bi te loru fu kenn yàlla dimbale woon na ko mu ànd ak Alaaji Abdoulaye di ko dawal ni mu doon dawalee baayam depuis 1975 ba l'an 2000 xaadim Alaaji Abdoulaye la nekkoon serviteur am Alaaji Abdoulaye óolu ko bàyyi ko yëppam ba bàyyi bàttale ko gannaawam bàttale ko njabootam mu nekk xalifa bi fi topp jiitu loolu mu nekk ak Baye Cissé premier xalif ànd ak moom ba mu gërëm ko ba l'an 2000 sëñ toog ci xilaafa mu ànd ak moom liggéeyal ko gërëm ko sëñ Daam dafa tëddoon rek lépp cheikh ab cheikh moo ko daan def muy koo xam ne la ko bàyyi waxoon Cheikh Tidiane mu ne ko waaw mu ne ko sa ñaari mag yi topp leen liggéeyal leen bañ gërëm leen buñ la gërëmee maa la gërëm fekk loolu kat amoon na ngërmaaneel bàyyi ku ko neexoon mu tëdd ne am na ngërmaaneel bàyyi ci ñu yàlla njëkk a séddee teraanga fii barke ci moom la ko moom la ko yàlla def mu daan dalal sërif yi bàyyi sërif yi daan jóge Maroc chérif yi daa jóge Tunisie chérif yi daa jóge fu nekk ak personnalité yi daa jóge ci réew yi ak réew mi ñëpp Pape Cheikh moo leen méngoo woon nit daana ñëw sax personnalité daana ñëw sax moom lay gis rek dem ñibbi ci war yëpp bu rëy waxuma kenn ci lu ñun xam nañ liñ ñàkk wax dëgg yàlla dinañ wax baat yi rek inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jaajëfal yooyu la kàddu dañuy ànd ak moom ba tey rek wër ci njaboot gi euh, taataan ay kaddu gannaaw nag ba mu jaalee kilifa yi Cheikh Bachir bu suñu baay Mahmoud moom itamit nag nee na daal euh, xalif bi kilifa la woon naam waaye nag ku woyofoon la ufoon itamit nag njaboot gi yëpp lu ni mel sax moo tax nak xool yëpp tooy waaye tamit nag tiis wi métti lool waaye lu mu ci mënti doon rek mu ne sant mooy li wax euh, Cheikh Tidiane Diagne moo taataan ay kaddoom. tey bés bi bés la boo xam ne kenn xamut looy wax ndax jaaxle nañ man nag dañuy dellu rek ca yàlla xam ne yàlla moo soxla moo bi nga xam luñ mën a wax ci moom lu may baax bàyyi daan wax mooy sooy tàgg nit ku fay ko yaa baax mu ne jor tuguddal la wax yaa ngi mbir gannaaw bu ñu waxee onze billahi min shaytaan ngi ko wax bakkan bu mos dund da nga mos dee suñ ñàkkee tey Cheikh bu rëy ci pays bi nekkoon xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim bët yi danañ sëngeem xol yi danañ ñëkk wante nag duñ wax lu naqal yàlla lu ñuy wax rek mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla lépp lu fi jëmbat yàlla na sax yàlla meññ te yàlla lañ bokk ci ñey lekk ca meññeen wax xalifa la goo xam ne bàyyi la nijaay la mag la lépp la lépp luy tegtal baax ak doomu aadama rek Cheikh Ahmed Tidiane Fodiane fekk ko fa tabe na am na xam-xam ku mën a jox mbokk la lépp loo xam ne daal doomu aadama dana ko xam wala dañ ko nettali ci nit ki ak mbaax Cheikh Ahmed Tidiane àgg na ci damu dam bu rëy la wante nag gannaaw ñàkk nañ mu doon Cheikh ko ñàkkee tey mu xam ne après rek moo jot mu dem ndokk yàlla bi nga xamee nag liggéey na fi loo xam ne wax la yàlla doy na teg baaraam arab léegi maa ngi jokkoo ak sama mag Pape Mahmoud ñu wax ñu ne suñu génne àddina ñu ne wàcc na liggéey mu ne sëñ bi nag moo wàcc liggéey dëgg dëgg wàcc liggéey bu sëñ moo ko def ndax euh, liggéey na liggéey ca jamono bàyyi ba ci jamonoom liggéey yi mu fi bàyyi yàlla na ko mën na xam jëfam ñun daal ñàkk nañ xarit ndax ñun kenn nañ ci euh, jabootam gi euh, kon nag ñàkk nañ xarit ñëpp ñàkk nañ kon ñu ngi koy jaale pay bi di ko jaale suñ mag Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim ak mbooleem njaboot ak Mawlana Cheikh Ibrahim gi ci góor ak jigéen di ko jaale imaamul akbar Cheikh Tidiane Aliou Cissé moom itam ñu koy jàlle di ko wax ne ñàkk na xalifaam ñàkk na xaritam ñàkk na nijaayam kon yàlla na fi yàlla jaare rek daal di dem fa nga xamante moo di ca kër Maam Ibra Fall seeti njaboot ga kaddu ya ñu yëkkati bépp jikko bu baax bu ñuy askanalee ñu baax ñi Cheikh Ahmed Tidiane Al amoon na ko ba tax na nag dundam gi dara niilu ci ndax nag li mu baaxal ci ay doomi aadama kenn xamul ni mu toll mbaax daal kon ci moom la yem di la mu wax moom Cheikh Ibrahima Fall ñu gën koo xam ci Baye Fall Libi ñu teewlu kooku Cheikh Tidiane Diagne alquran buy tagg nit bu xeggee ci innahu kaana min asaalihina wax jooju jeexal na ko dafay jël jeneen wax kay te kii bépp bunt boo dagg soo ci toppare bokk ci ña nekk ci njolloxtanal loola su dee tabe mu nga ca njolloxtanal ñu tabe ña su dee lewet mu nga ca njoxta njolloxtanal ña lewet ña su dee xam sa ci mbooleem mbindee fi yàlla yi soo demee da nga koy fekk mu nga ca njolloxtan loola su fekkee ne mën a ñëweti jaami yàlla yi man leen a dimbale mu nga ca njolloxtan loolu fees dell soo ko seetee ca bunt boobu da nga fekk mu nga ca njoloxtone bon daal bépp bunta baax boo ca demee rek danga fekk mu nekk ca mina saalihin bon foog naa ne loolu doy na waaye wax na ne bi nga xamee ne baa ngi leen di tàggu moom ak alaaji abdullahi rahimahullahu ak alaaji ahmad rahimahumullahu ak moom rahimahumullahu ba mu leen di tàggu ca jëppal ba wax ak ñoom lam wax ak ñoom ba pare bañ jógee bay génn def na ko xee mu geesoo mu ne ba mu dikkee mu ko sa ñaari mag ñii dimbale leen yërëm leen na ko jëfin woo xam ne xemut ci dimbale alaaji Abdoulaye dimbale alaaji Ahmadou waaye képp koo xam ne jaar na ci yoon woo xam ne diggante moom magam yooyu ba képp koo xam ne xam nga mag war nga ama a jaar ci yoon woo bon dimbale na la dimbale na magam ñi dimbale na ñeneen pour ñu dimbale seen mag ñi dimbale na tofool baayam ki nga xam ne moo topp ci alaaji Abdoulaye di alaaji Ahmadou bon sëriñ la boo xam ne tabe kenn gisu ci moromam waaye nag yàlla dimbale na ko mu dund dund gudd boo xam ne mali un bil amul dara lu yàqu ci dundam ñun de xamuñ ko gisuñ ko dégguñ loo xànd ak moom lu mu tuuti tuuti jëng ci jëlee ab yar ci moom boo xam ne nga gisee ne man dey su ma doon def du ma defee nii wala duma doon waxee nii ngir lam wax gën a rafet la nga xam ne moom nga waroon a wax ak moom nga doon def kooku mooy jikkoom nit ku baax la nit ku seel la ku liggéeyal lislaam la ku liggéeyal tariqatu tijaan la ku liggéeyal faydatu Cheikh Ibrahima la li nekk ci kër gi tey ci ñoo xam ne kenn sa baay newut fi kenn sa yaay newut fi waaye wut si mbaax lim ci dugal ci këram gii ñuy xañ di reer di ndékki ñooñu day bëri nañ bëri goo xam ne ñu ngi ñaan yana leen yàlla tog loxoom ndimbal teg loxoom ndimbal ñi nga xam ne ñoo koy wuutu ba ñooñu duñ jooy allahuma amin mu nekkoon ay kaddu yi Cheikh Baye Fall Libi loolee nag mu yëkkati ci ay kaddu yëpp moo tax rekk ñu ne damm-damm bu rëy la ci pays bi ak it nag ci àddina daj weex ngel képp waaye nag lu mu ci mënti doon xekk teewul ne itamit taalibe yi ànd nañoo dal ak muñ a Chérif euh, Chérif Hadi euh, Nehma moo yëkkati yooyu la kaddu ci micro Cheikh Assane Cissé. al xalifa Seydi Ahmed Tijani ibnu Cheikh Ibrahim Niass di ko jaale aalam islami bi yëpp mais di ko jaale Sénégal di ko jaale Mauritanie di ko jaale mboolem taaliba Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu dam-dam bu met bu mag moo ñëw fii tey Medina Baye xalifa Cheikh Ahmed Tijani matut weer ñu tàggu Seyda Fatimatu Zahra taaw Baye Niass léegi xalifa Cheikh Ahmed Tijani xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim Niass liy wax dëgg yàlla yar bu ñu yar moom yar bu pay bi yar ñu moo tax amul lu ñu wax lu dul inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah lépp lu yàlla def rek moo lu gën war sant yàlla bu baax ci maqaama bi di wax na man mi spécial ndax ku nekk xam na relation Seydi Tamidu Abdullahi ak xalifa Cheikh Ahmed Tijani ci jëmanu baay moo doon nattali mu na jëmanu baay bu nekkoon ci jëppal ci néegu baay mu ne ñett ci nit ba ñeent moom la marqué ci doomi baay nekkoon ak bàyyi waxtu boobu mooy Cheikh Ahmed Tidiane mi Seyda Mariam Niass ak Cheikh Muxtaar yàlla ni leen fii ak moom telmid yi day dem ba Malick si indi Seyda Mariam ci otom bi ay cin di toggal bàyyi suba ba ngoon xalifa Cheikh Tidiane mi ngi foofu dégg naa ne temps boobu gan bi bëree xalifa bi day tëdd ci garage fu oto bi nag foofu lay tëdd nalaw kon mu ne ñii ay taaliba bàyyi leen man maa ko Seyda man telmid yi mu ne bàyyi dañ ko xidma xidma taaliba musuñu gis na ne doomi bàyyi moo tax yàlla wan ko loolu nekk xalifa baay nekk xalifa boo xam ne ñëpp ñu ngi ko jox gëddam ñëpp respecté ko àddina yëpp xam na taxawaayam ci lu nekk ak tabeem ak mbaaxam. ak mbaaxam dañuy des ak moom nag ba tey papa Cheikh nag ku ñëpp xamoon la ci jëflanteem ak jaamu yàlla yi rawatina nag naax yeeg awsa yi ba tax na nag mu ne sikkuwul ne daal ñëpp ko jooy waaye tamit nag saalam ba mu daan teralee jaamab yàlla yi wéet na moom Chérif neex Nexma ba tey ak chef Assane korok bu ñëwee Mauritanie luñ dun taalibe ñoo ëpp ñu ko seet ci taalibe ndax xam nañu mbaa xam xam nañ lan mooy xel mooy Cheikh Tidiane xam nañ ko ci événement Sénégal Mauritanie xam nañ ko ci taxawaay bu nag surafa yi xam nañ ko kon tey ñëpp ñàkk neen xalifa Cheikh Ahmed Tidiane borom aajo yi ñàkk nañ ko borom soxla yi ñàkk nañ ko taalibe yi ñàkk nañ ko muqaddam yi ñàkk nañ ko xulafaa yi yëpp ci kaw suuf ñàkk nañ ko mais jullit yëpp ñàkk nañ ko bés bu rëy la ci Medina Baye tey bés bu rëy la kan mooy Cheikh xalifa Cheikh Ahmed Tidiane laajal koo bëgg nag laaj xam nañ ko ak yaram ak noppiyam ak mbaaxam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon tey ñun Mauritanie yi ngi am beneen métti métti ndax mbas bi est-ce que danañ mun a ñëw duñu mun a ñëw mais yaakaar naa naar yi wala ñu dox seen tànk kenn mënoon leen tere ñu ñëw ci tey ci Medina Baye pour fekk lii ndax lii moom ñun ñoo ko bokk ak yéen kon balaa Mauritanie yi ñëw maa ngi wax ci seen tur yëpp ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cheikh Ahmed Tidiane Baye moo ñu ko séddoo ñun Mauritanie bokk na ci demi Baye ci Mauritanie mooy dem boo xam ne dem na borosu pour gis xameñ ñi pour jox ko xalifa bi daf ko ko jox rek delluwaat te yu ko jox duñ taaliba mais ay dëkk borom xam-xam leen xoolal Baye fu muy xool dem na ba xalifa boobu ba léegi ñoom ñu ngi leen cëral te chaque at dafa am lu muy xewle dem ci ñoom ba léegi àllarba lañ ko tuddee moom àllarba am bi musul dak saal bi bu ñu nekk fii tey képp ku doon tare alquran dana ñëw fii ndax xam na xalifa dafay taral képp ku tare ak ku ko tareyam ak famiyam kon saal bi jooy na ko xadra bi jooy na ko zikril bi jooy na ko mboolam jotaay yu baax jotaay ku kawe jotaay islam yëpp ñàkk nañ tey ñàkk bu métti mais moom dafa ñu yar ne am yàlla manqué wu dara bu sell bii di Medina Baye lii tamit nag junjoon naa leen ko ci ndorteefu xabaar yi lew nañu seen nag ak Medina Baye benn la ndax nag cosaan li yëpp Maalaaji Abdoulaye Niass Al Kabir la ba tax na nag lu dal kenn kii tamit faw rek keneen ki daal di koy yëg lu ni mel nag ko xamle mooy Ahmed Babacar Niass di porte parole ba ànd ak na tamit di jaal ñëpp ñaanal Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima ñas ak it nag di rafetlu bu baax a baax taxawaayu Alfayda ñu teewlu ko ci waxtaanam ak El Hadj Oumar Cissé. ni ñu ko dundee fii ci xadra Madina

xalifa bi ak i mm. doomam ñu ngi jaale liñ bokk mm. di ñaan yàlla ñoom ñëpp ci lam ñu xalifa bi ak rakkam di ñaan yàlla yàlla seeral mbir mii dana jafe nag yàlla nee na lu mu fi jëlee dana gën indi fi lu ko gën wala lu mel ni moom ah ñu ngi koy nekk waaye ko mel ni Seex Ahmed Tidiane Ibrahim di gërëm alfayda ni ko imaam defee woon keroog mi ngi ko ubbi fii mm. daf na du jeexal sama kàddu bu ngeen seeteen seet archive da ngeen ko dégg loolu damaa gërëm sama mbokk di sama xarit sama lépp di Alaaji Ahmed Babacar Niass lii mu fi samp nag sampalu ko moom dem na bu seet yool baa ko fay fekk amuleen ci xejj ak seen ata Raïs Gaye bu ma ne ko caara téléphone ne ko nangam ak nangal laa bëgg xuma la sax ñi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam mu ne ma na nga télévision lañ fi bëgg a fekk fi télévision lañ a ndax jaadoo ko matee ko ndax rajo bi li muy génnee ci hmm. biir fii ci Sine Saalum amul benn organe de presse boo xam ne lim fi matal dana ko fi matee kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla def fi jàmm hmm. def fi wér def fi sutura lii jógee fi xalifa bii di fi suñu xarit di suñu lépp yàlla dëgër ay tànkam woyefal yéen bi jàppale ko jàppale osra bi jàppale Karaja Abdoulaye Niass dañuy euh, dox ndànk nag jógee leew nañu seen dem ca l'hôpital régional euh, personnel ba nag foofee nag ñoom ñëpp dalee ko ci directrice ba euh, ba ci ki gën a suufee yi tamit ñoom ñëpp jooy nañu papa Cheikh ne ñoom rek naka ñoo ñàkk ndax nag gannaaw yàlla papa Cheikh moomee moo tax tey jii ñu fay amal journée du parrain waaye tamit nag loxoom mësula jóg benn yoon ca barab ba Baye Oumar Thiam chef de service ressources humaines ba moo yëkkati yooyu le kàddu jébbal ko Cheikh Ababacar Dieng. tàrt bu rëy la ñun xam nañ lu bari ci li nga xam ne mooy diggante relation Cheikh Jean Ibrahima Niass ak hôpital régional xam naa ne dañuy waxaale kàddu yi ko directrice Khadijatou Sarr Kébé ki nga xam ne mooy kilifa hôpital bi nga xam ne wax dëgg amoon na ak ay moom ay relation yu am solo doo xam ne kenn mënul ko nettali fu ñu jaar ak lépp loo xam ne ay ñaan yoo xam ne dugal na ko ci hôpital bi kon mu mën ne ñu ne tey jii daal wax dëgg hôpital régional moom moo perte ak ñi nga xam ne ay liggéeykatam Babacar di fàttali na chaque fois bu amoon ay accident yu xaw a bàyyi noonu ci biir hôpital bi ñi nga xam ne amul lu ñu jëndee seen ordonnance bu ko yëgee enveloppe bi mu ciy joxe ñun sax daf ñuy bett Babacar mun nañu wax ne suñuy toog hôpital El Hadj Ibrahima Niass moom mi moo ci taxawu à l'époque ñu ngi fàttaliku ne moom directeur Savare Issa Savare ñoo ci taxawoon ba nga xam ne fu nekk nii journée yi ñëpp xam nañ ko te di la wax ne heure buñ ci jógee rek am na loo xam ne dina ci ruus ba nga xam ne ñun sax daf ñuy xaw a bett waaye loolu bettuñu daanaka li nga xam ne moom mooy ay ñaanam da ci daan dugg waxuma ñaanam dana ci daan dugg mais ay loxoom loxoom dana ci daan dugg ñu indil enveloppe boo xam ne ci la ñu organiser journée parrain yi ba boole koog nag waa Mérina yëpp ñu kon daal Babacar wax ne tey daal daal wax dëgg hôpital régional euh, ñàkk na ñàkk na suñu kilifa bu mag suñu kilifa bu nga xam na xolam yaatu na ay jëfam aussi yaatu moo tax ngeen yéen waa hôpital daal tiis bi seen mun nañu wax ne tiis bi suñ tiis la ku ku bëri woon njariñ la hôpital wax dëgg daawuñ def dara loo xam ne daawuñ ci diisoo ak moom xaj na euh, mënoon nañu wax ne sax hôpital bi euh, waajuram lañ ko waaye moom su la ne Maulana Cheikh Ibrahima tur boobu rek moom dafa doy pour moom toog ñu jël loxoom di ko def ci Sall mun nañu wax ne sax dugub bi nga xam ne Agatha la chaque fois bu ñëwee dafay yëkkati wàll ne lii waa hôpital régional ci woon ni o directrice bi boole koog délégation ñu ñëw indil ko ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sëñ Babacar mun naa wax ne am na lu bari loo xam ne dëgg tey jii mun nañ ko ndamoo ci waxoo loxoom ak ci ay yitteem ci lañ ko amee kon ko wax dëgg ñu wax ne ñun daal ñoo ñàkk waaye nag yal na yàlla bu fëlal ñu yéen a déglu xibaar 90.1 ngeen ñuy toppandi ba tey ci juróom ñeen fukk yu tombal euh, benn kaddu gi di àddoo fii ci Medina bàyyi ngeen ñuy teewloo ca kawil Koutal Kossy jàpp euh, Kaolakat euh, Kossy bàyyi tamit nag jooy nañu Papa Cheikh ndax nak tabax na faab lycée joxe ndigal ngir ñu yeesalaat seen jumaa ja waaye tamit nag semb fa ay sembu yu bëree bari Papa Cheikh yi tamit nag ku fonkoon Kossy bàyyi la ndax it nag fa la gane àddina Cheikh Ababacar Dieng. ci dëkk bi li gane àdduna fii nekkit njëlbeenu bi Papa Cheikh ku ko bàyyi woon xel la si si Ahmed Tidiane Khalifa ku fonkoon consi la ndax lan ndax moom fii la juddoo ci 1932 yàlla def euh, bàyyi digal ko mu dem daaru mbitéen sanc fa ci néegu ndeyam waaye lépp loo xam ne lii daar waxaat nañ ko ko rek bu xolam xale joo dafa ne dama ñibbi Kossy danaa ñibbi Kossy fii lu nekk def na ko fii lu baax lu baax loolu def na ko fii ci Kossy daan dimbalanteeg ñoom ci lu bari ci lu nit yëg ak lu kenn yëgul jàppalanteeg soxna yi mag ñu góor ñi fa ne waaye gune yi it mu den loon dimbale ngir seenam njàng bënn ndax ñi am àdduna rek moo di CM bu Kossy Papa Cheikh moo ci def ay millions yu ko taxawal Cheikh bi tey notable la ci Kossy nekk directeuru école bi. CM bii ñu am nga xam ne gouvernement daaw tabax tabax taxawlu fi benn tabax moom moo fi tabax yi fi am na fi six classes xam nga euh, sept classes yoo xam ne moom moo ko fi def moo ko fi tabax ak ay toilettes ak lépp moom moo ko def moom boo waxee sax lycée bu Kossy bi lay wax mosut a ay millions ay seize millions la ñuy njëkk a njëkk ñu tabax trois classes yi lu nekk ci wax na fii loolu daanaka état bi la ci wuutu waaye li nga xam ne moo di rôlam dëgg-dëgg nag en tant que kilifa diina taxawaay bu mat sëkk la ci doon def koo si hiit amoon ci cër bu lëw ndax am na ab sembu bu mu fi sumb yàggul sax jumaa ji nga xam ne bàyyi ma ko lu doon 1962 ay Ablaay sonn ci mag ñi jiitu woon yëpp sonn si ñu tabax si def si lu nekk booy imaam eggale woon ko ba mu ko yeggalee bañ sanc ko nekk dal bi baaxul suñ jullee suñu jullee muy xabar fi daanu moom moo joxoon digal ne nañ ko toj ñu def fi jumu tabax jumaa ju dëppoo kuusi moo taxoon daaw toj ko ba réddu ko ba commencé ko di ko tabax waaw moom moom xalifa moo joxoon digal ne ne koosi jumaa ji wii di daanu di dal ci nit ñi warut am koosi nañ ko toj ñu tabax jumaa ji dëppoo ak koosi parce que koosi jumaa ji mu war a am du jumaa ji koosi nekk ab dëkku cosaan ci Saalum waajuram moo di cheikhul islam alaaji Ibrahima Niass Baye am fii ay jaar-jaar wuutu woon fii baayam bi maam alaaji Abdoulaye Niass al Jëdd mu ngi bokkee ci commune bu Njaafat soriwul dara point bi ñu duppee Serigne Bassirou koosi digg mag régional capitale bi di Kaolack fukki kilomètre ak ñett rek la fii la xalifa bu Medina Baye bi woon ganesee àdduna sant ko gërëm ko jaajëfal ko moom Cheikh Ababacar Dieng mu nekkoon nag bi doxoon rek ci diggante Papa Cheikh ak Kosi Baye Papa Cheikh Al Khalifa ah, ki ko war a wuutu xam nañu ko junjoon naa leen ko ah, dip borom xam-xam ah, conférencier international ndaw ñi bëgg ko lool ndax tamit nag dégg jamonoom mu oyof lool waaye tamit nag déggoon ndigalu magam ja mu nekk nag ka ñuy dàkkantalee borom tafsirul xur alquran bi ci Medina Baye nataalu Cheikh xam-xam la bayal bu Medina Baye miin na ko néew na lool nga gis loxo ndeyjooram te fekkoo fa kaamilu alquran bu mu gàddu Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye directeur bu institut islamique El Hadj Ibrahima Niass woyof doon na lu ñu ko ràññee lool ndax foo ko xool ci mbedd Medina Baye gis ko fa buntu këram mooy barab ba mu méngoo toog moom ak i taalibeem ci ab piliang bu ñuul lu ëpp ci ay conférence xidma diine ñeel faydatu tijaaniya moo koy def gën ca fës ci biir réew mi ak dëkk kaw yi nekk fii ci biir Sénégal cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass tukkeem bëriwut lool ñëpp ràññee ko naw ko tamit ci ni mu déggalee ki nga xamante ne moo di xalif bi fi bàyyeekoo di cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass moo xam ci ay kàddu yu mu war a yëkkati wala sax lu ñu war a def ci dëkk bi bi ci mujj te gën a fees bokk na ci tabaski gi la weesu rek bi muy jël kàddu li mu njëkk a wax moo di maa ngi wax ci ndigalu xalif bi di cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass xew-xewu naqar wala bànneex ràññee nañu ko lool ci kàddu béy bi mu koy yëkkati mu naan ndax dégg gi mu ko dégg diplomasi la ci fànn bi nu mel la am itam ay ligaasa yu bëri directeur bu daara ji gën a màg ci jàngukaay ci dëkk bu sell bi moo ko yor depuis bi cheikh Mohamed Nazir dëddoo waajuram bu góor Maulana cheikh al islam la comme ni ko ñëpp xamee waajuram bu jigéen Adja Fatou Diagne tey ki tey moo wutu magam ji mu déggaloon lool tax na ñëpp di fuglu ak itam di ko ñaanal cheikh Mahi Niass bëgg na lool ndaw bu jàng waaye tamit ku xam ak itam di jëfee xam di ko doxal ak mbaax bés bu yëkkatee kàddu mu tàbbi ci pa nopp loole lay digle yaakaar juddu ci moom taalibe yi di ko biral ku déggal magam ji fi nekkoon nekk tey xalif général bu dina bàyyi caaxaan waxu ci dara mbiru àdduna yitteelu ko ab dëgg fum ko fekk fa la koy bàyyi ñëpp nag àndandoor di ko ñaanal mu yàgg fi ànd ak wér te itam sumb yi nga xamante ne magam ji defoon na ko mu àggali ko lépp tamit lu mu sumb yàlla def mu naal ko tey jii nag ñu fàttali ne mooy juróomeelu xalif bu Mawlana Cheikh al El Hadj Ibrahima Niass Baye. xabaar yi bitim réew. xabaar yi euh, biti réew Cheikh Tidiane Sarr foo koy dooree. xibaaru bitim réew yi dañ koy dooree ca réew mi di Gambie nag Gambie yi jamono ji ak feebar bi ñuy wax euh, coronavirus jàppale daal ñetti ministre ñoo ko yor gannaaw bi nga xam ne nag président ba di Adama Barrow moom isolé woon nañ ko daal euh, ay bis ñu génn daal beroon ko maanaam ak ki nga xam ne moo di vice président ba ka ñu toftaloon ci moom di Aïssatou ture nag moom tamit ñu testé woon ko positif ñi nga xam ne nag ñoo di ministre yi ñu dénk wàllum kopparu réew ma ak ministre bi ñu dénk wàllum pétrole bi ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi ñoom ñëpp nag jamono ji dañ leen a testé positif xibaar bu nu mel ñu ngi ko jëlee ca présidence bu réew bu Gambie. xabaar ci waxtu boobu nag soxna Ngoone jàppal ne daal réew mi di il Maurice nag euh, jamono ji amatul benn cas bu coronavirus nag euh, wante nag seen frontières yi dañuy wéy di ko tëjagum ngir gën a mën a fàggandiku bu baax a baax ci waxtu boobu tamit soxna Ngoone jàppal na daal ca réew mi di France euh, Elimano jëwriñ ya di Jean Castex nag mu ngi woote nit ñi ñu gën a jëlaat seen matuwaay bañ a bàyyindiku ci mbas mi ñuy wax coronavirus moom nag mu ngi yëkkati kàddu yu nu mel ca dëkk bi ñuy wax euh, Lille nag euh, muy woo askan wi ñu gën a solaat masque yi waaye tamit respecté tegtalu kër docteur yi moom Jean Castex muy xamle ne ba tey nag ne virus bi mu ngi ca réew moomu la di France kon na ñu gën a bàyyi xel tamit ba dund ak moom waaye tamit bàyyi xel ci nees mën def ba yëkkatiwaat suñu koom-koom waaye tamit wàllum dimbalante bi ñu gën ci taxaw bu baax a baax lu nu mel nag nee na daal buñ ko deful boobu moytuwul danañu delluwaat ci lu ñuy wax euh, reconfinement maanaam tëjaat askan wi si seen euh, kër ya. xabaar yi bitim réew. ca Cameroun nag benn attaque moo am ci ab camp boo xam ne daal camp déplacé la nekk ca bët gannaaru réew ma daal. Euh, camp boobu nag gannaaw bi nga xam ne song nañ leen ñu koy jiiñ waa bokk araam nag ñoom nag jamono ji nemmeeku nañ ne daal ñi ci jotagum ñàkk seen bakkan lim ba toll na daal ci lu ëpp fukki nit ak euh, juróom ñett daal mu nekk lu doy waar foofu la ca réew mi di Cameroun lu nu mel nag mu ngi am niki ay bis bi ñu génn bu ñu sukkandikoo ci xibaar boo xam ne jugeekoo na ca kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ca gox boobu nag kilifa yooyu sax ñu ngi joxoñ baaraamu daal ñi nga xam ne ñoo di terroriste yi wax Boko Haram yooyu nag nekkoon xam ne mu ngi àndoon ak ay grenade lacrymogène soxaloon benn camp boo xam ne ña fay faral di nekk ci ay nit daal euh, seen lim daanaka jege ne lu ëpp juróomi téeméeri nit ci waxtu boobu tamit soxna nga ne ngir jaxale xibaaru bitim réew beneen song boo xam ne am na ci Afghanistan lim ba jamono ji si ñu ci jotagum ñàkk seen bakkan mu ngi toll ci ñaar fukki nit song boobu nag mu ngi amee ci benn prison boo xam ne mu ngi amee sa penk réew ma nag ñu koy jiiñ waa état islamique bu ñu sukkandikoo ci kilifa ya soxna Ngoné fàttali rek ne ñu fay faral di nekk bokk na ci taliban yi waaye tamit ay nit yoo xam ne ci état islamique la ñu bokk ba tax daal ñu bëri di wax ne daal lu nu mel ngir mu dakk fa dina nekk beneen taxawaay boo xam ne kilifa yi war nañ ko am ngir xoolaat kan ak kan la yóbbu ci seen euh, prison yooyu. xabaaru na soxna Ngoné ñi leen di jaajëfal ci teewlu bi. xabaaru tàggat yaram. tey nag bàkk baa ngi jibee fii ci studio Alioune euh, Momar Lo Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu ma ko auditeurs yi ñu soobu ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak euh, football ginnaaw benn weer nag comité exécutif euh, bu fédération sénégalaise bu la jëloon ab ndogal daal di arrêté championnat sénégalais bi daal di jëloon nag ñaari équipe bi di Jaraaf bu Dakar ak Teungueth ca FC ñaara nekk représentant Sénégal ci compétition interclub yi ci Afrique ñoom sax amoon nañ ba fanweeri fan ci weeru sulet ngir dëggal waa wala déet seen bokk ci compétition bi ni mel Teungueth FC sax mujj moom dina bokk ci Ligue des champions ci Afrique mi ngi woon nag ci tuyau yi boobaak léegi dëggal nañu ko ci bataaxal boo xamante ni confédération africaine bu football daal di na koy fësal ci armanade bi jëm ci demi-finale Ligue des champions nee na jongante yi des na ko amal ca domicile ak ca extérieur bu dee nag jongante ale de des na ko amal ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak benn ci weeru satumbar foofu ca Maroc bu dee nag jongante retour yi des na ko amal ñaari fan jàpp ñetti fan ci weeru octobre foofu ca Égypte ba léegi sax bataaxal bi di dëggal ne kaaf daal dinay dëggal ni ginnaaw bi nga xamante ni final kat bi daal dinañ koy mujj dàq ni ginnaaw bi nga xamante ni Cameroun bi ko waroon a dalal dafa mujj désisté li nga xamante ni moom mooy mas di coronavirus programme yi nag ni la tëddee pyramides bu Égypte mooy laaleek Horoya AC bu Guinée ca complexe Mohamed V ba ca Casablanca RS Berkane bu Maroc di laaleek Oussa bu Maroc ca Stade Prince Moulay Abdallah ba nekk ca Rabat moo leen jongante yi nag des na ko amal mondial 2022 la ñuy waxtaanee ca Qatar ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre FIFA nag fu mu toll nii nag door na arbitre yi nga xamante ñoo fas yéene bokk ci boobule compétition juróom-benn sifflet africain téegum nañ leen ngir ñu bokk ci ah, xew-xew bi ni mel bokk na ci doomu Algérie bi di Moustapha Gorbal doomu Maroc bii di Redouane doomu Sénégal bii di Maguette Ndiaye doomu Égypte bi di Oumar Mohamed doomu Congo bii di Jacques Ndala ak doomu Éthiopie bi di Bamlak Tessema ñu dem ca Algérie foofu nag nag football baa ngi ci naqar ak tiis fédération algérienne bu football nag di faf daal dina ñuy xamal ni kii di Saïd Amara nekkoon fii joueur bu équipe FLN nag am ñaar fukki sélection ak benn dugal ci fukki but ak benn moom nag daal dina génn àdduna ci quatre-vingt-sept ans FIFA nag fu mu nii nag yoon nag mi ngi ci ndoddu jiitu FIFA di Gianni Infantino ci benn procédure pénale boo xam te moom la topp kii di jiitu FIFA bi nag dañuy wax ni dafa amal ay gise yu jaarut yoon ak procureur bi di Michael Lobe weer dirigeant italien bi di Gianni Infantino dañu ko toppandi abus d'autorité xotti charte secret de fonction ak tere gi muy tere am action pénale Infantino nag nee na taxaw ne tem ngir coopérer ak autorité yi ngir mbir mi ñu am ci lu leen leer moo ngoo ko ngoon njaay reen gannaaw bu ñu la ñaanalee kendaa yu jàmm lii moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf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 paase wuutu magam ju baax ju sell ja Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass lii quotidien moo ñu xamal tey ki toog ci jal bi xalifa dina Baay bi jaar-jaaram dundam mu tënk ko ci ñaari baat na Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass mii ginnaaw xam-xamam nit ku ubbeeku la te tamit nit ku baax la la Soleil yéene kaay ne ko njiiti réew mi Macky Sall samedi bii di ñëw fay dem dina Baay ngir jaale ji njaboot ak Baay Niass gi ginnaaw wàcc ak liggéey seen xalifa ba yàqalab njaal ni ki démb yéen a kaay bi yokk ci na yemut foofu moom Macky Sall woo na téléphone xalifa bu bees bu Medina Baay bi waxtaan naag moom lu yàgg samedi nag la fas yéene ñëw ca dëkk bu sell ba di Medina Baay ndax nee na jëmm ji fi jógee Sénégal yëpp a ñàkk Moustapha Cissé Lo ci l'évidence yéen a kaay na Sénégal ñàkk na kàngam jëmm ju mag l'islam bi jooy na l'islam ñàkk Moustapha Cissé Lo ne Serigne Cheikh Tijane Ibrahima Niass ku doon jagal diggante yi la fa baaxoon lool ma dikke ñang feelu ko na ko may ma ngir yàlla bu dee mbaaxam rek kooku man maa ko mën a wax sénégalais yi man ma dikke ñang ku ko jege woon laa sama xarit la woon jëmm ju màgg ji mujj sell liggéey jaamu yàlla ak ñaanal doomu aadama yi ci li rek la ne woon séedéma dikka ñang yi ak Moustapha Cissé Lo yi ña nga ca l'évidence yéen a kaay nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na nguurug Sénégal du ñuy wax dëgg sénégalais yi xalifa général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour moo ko wax vox populi yeggee ñu ko rawati na na mbiru corona bi ma ngay sàkk ci ñoom na ngir yàlla dee leen wax sénégalais yi li xam kàddu yi mi ngi ko yëkkati bi ñuy rob Mansour Kama réew mi yéen a kaay na xalifa général moom yàqut ko fenn fu mu jekkoo rek jël kàddu yéeg na ci kaw gouvernement bi dal ci seen kaw ne leen di leen wax dëgg sénégalais yi ci corona bi moo gën ngeen nekk fii def ay bilan rek te mooy yéen a kaay mel ni ku naan ko waaw góor xalifa bi gouvernement bi fa war a wax dëgg sénégalais yi te bay afar caan caan yi nekk ndax mbiru corona bi fa lënt ci bopp sénégalais yi si du quotidien ne ay borom xam-xam ñoom i tamit ña ngay ñaawlu doxalinu nguur gi ci ni ñuy xeexee corona bi ñoom fa wax ne fa ñu bàyyi sénégalais yi ak corona bi ñu am seen ak mat ak jël matuwaay moytu te ñoom nguur gi ñaaxuñu askan wi te sàmmuñ ndax xool bañ ko salfaañee fi déedéet ñoom fa ñoo wax rek seetaan sénégalais yi affaire bi du noonu d'accorduñ de laas yéen a kaay na ko juróomi weer a ngi ni bi corona bi duggee sénégal waaye fi mu toll nii askan wi fa ñoo jàq ba pare tamit fa ñoo ñàkkal fayda corona bi respecté wuñ benn benn benn matuwaay dandante wuñ fa ñuy nuyoo ñuy sol masque bëriwul li bëri léegi sénégal mooy fa xam ñoo xam ne fa ñoo feebar te xam nañ xaalis bu bëri bëgg a dem réew faju ji te mënuñoo dem lépp ak corona bi enquête yéen a kaay na loolu nag ah suñu réew mii suñ kër docteur yi xamuñ benn jumtuwaay hôpital yi ñoo gën a feebar ña fay fajoo léegi yow nga yor sa xaalis gisoo ko la faj ci réew mi te mënoo dem faju ji bitim réew loolu foog ngeen ne jàmm la ña jàmm dalut nag mooy journaliste taskatu xibaar ya nekk ci Les Échos yéen kaay yaw seetal ñeenti waay daal ñoo leen fekk seen daluwaay ba dal ca seen kaw jël seen jumtuwaay ya matériel ya fañ koo toj rajaxe ko juróom-ñetti ordinateur yu mag ak benn télé écran yéen a kaay bi ne gars yi daal fu ñoo dugg rek commencé di ñu këttal ay saaga rajaxe nappaaje tojate suñ bagage yi ñu ne la waaye lu ngeen def ni ñu ne ñun taaliba njiital moustarchidine wal moustarchidaat yi ñu ne leen waa léegi lu tax ngeen di def lii ñu ne leen waaye yéen tamit lan moo tax ngeen di fenn di bind naan sëriñ bi fa feebar amee corona ba ko tëral lalu hôpital looloo ñu naqari te yéen fa ñoo ne journal ngeen boo xam ne du ngeen bind bukk lu baax ci sëriñ Moustapha Sy njiital moustarchidine wal moustarchidaat yi le quotidien yi ñëwaatee du baax waaye lañ def nag dëgg dëgg dëgg dara gënu xibaar yi yëpp jóg nañu ñaawlu li ni mel ne réew mi fa am yoon na yoon def liggéeyam ndax fañ leen war a teg loxo yow bindal nañ la xibaar su fekkee du dëgg portel plainte nga yóbbu journal bi ci yoon waaye fajal sa bopp jaanam gu ñaaw gii loolu kenn waru koo seetaan Sénégal nag buñ seetaanee fa ñoo nar a nekk réew mu ëpp corona ci Afrique sow jant ndax léegi ñoo jël ñaareelu place bi l'observateur moo ñu ko xamal yaw seetal ci ñaari weer juróom benn fukki doomu aadama juróom ñaar corona rey na leen fi yéen kaay bi na weer ut wi ñu dugg nag hee ku jàq de corona bi fa fee nar a rey fa fee nar a jéggi dayoo ci bañ a wax rek la mu wax moom Dakar Times mooy Abdou Karim Fofana dëgg-dëgg jàmbaar la lii mu def muy rajaxe marché Sandaga bële pour tabaxaat ko mbedd Ndakaaru yi jaaykat yi fi laloon ñu jëlee leen fi li ni mel Khalifa Sall jéemoon na ko bi mu fi nekkee meeru Ndakaaru sottiwut naka noona Mamadou Diop meeru Ndakaaru Pape Diop ñoom ñëpp jéem nañ sottiwut moom mu ñëw régler ko kilifaam nag Macky Sall moom nee na du régler bor bi nga xam Moustapha Souran bi fi nekkoon jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng njàngale mi ci jamonoy Ablaye Wade génn na àdduna allah feebar bu gàtt bu ko daanee ci la mujj woo yee boromam bi mu xam juróom-ñaar fukki at ak benn turbine yéen a kaay na leen gis ngeen bu ñu waxantee dëgg bii li fi faatu ci ay kilifa Sénégal gii fa maa jaaxal seetlu leen rek ay kilifa diina yu mag ay kilifa aada yu mag ay kàngam daal ci réew mi bi ci mujj rek mooy xalifa général bu Medina Baye te am na yeneen ñeneen ñeneen ñu ko jiitu loolu nag war ba wax ngeen dem sàcc ji ca agence informatique bu état teg nañ ko loxo ba jàllal nañ leen ca kaso ga nekk takk der sandarme sàcc ñaari junne ak fukk ak ñaari ordinateur portable ak fukk ak benn ordinateur fixe bureau la mu ñu xamal moom la l'observateur mooy ay mbir yu yéeme yu garaaw yoo xam ne mi ngi am Sénégal kuñ ko wax sax da naan du dëgg fa ñoo gis ay jur maanaam yaay ak baay yoo xam ne seen doom yiñ jur ñoo leen téye di leen dóor di leen mbuqi dóor yi métti fa ngay gis doom ju dóor am ba damm ko doom ju dóor baayam ba ray ko doom juy saaga ndeyam ak doom ji saaga baay baayam sëriñ Mor Mbay xam-xam màcc dundu doomu aadama na lii moom musiba la te nag fa fee bëri de waa ma ne maa foog ne daal fa ñoo feebar wala jinne jàpp leen wala boog ñu takk mbaal gi mandi ndax ko ànd ak sa sago yaay ji la jur nàmpal la baay ji sàmm yar la nga tiim leen di leen dóor a rey fayu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 nag la xabaar yi di euh, buuree jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare ci wàllum déglu gi waaye tamit nag cant ak gërëm ñeel na Serigne Moussa ci wàllum xarala gi ak waa rédaction ci njàppandal gi ñaanal leen mucc ak mucculee jami biir ak biti tawféex ak taysiir jaa ngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye